gis xam ne ku xool xam ne moo nekk candidat bu baax bi li muy liggéey kenn liggéeyu fi ku gëmm sax di xool di nga xam ne li muy liggéey dafa leer nañ ñun nag naaju tàng ak lépp lañ ci yemale ñu ngi ci terrain bi président Macky Sall bu bu soxlaa ñu bëgg dara soxla soxlawuñu mbubb soxla wu ñu soxla wu ñu dara luñ mën a am ay 4 heures matin la ñu dugg suñ kër luñ mën a am mu am deuxième mandat moo ñu ko gënal. lan moo tax ngeen préféré porte port porte yi. dugg buntu kër par buntu kër lan moo waral loolu. waa xam nga li tax ñu préféré porte à porte yi mooy dañu gis ne dañu amoon istilu di def lu mel ni ay ay ay ay ay ay meeting ay kafe et cetera tey ñu gis ne euh, ndaje yooyu dëgg la message bi dana jàll mais nag dëgg-dëgg li nga xam ne président def na ko fi euh, nga fekk nit ki këram. wala place am wala nga dajeeg moom taxaw ak moom wax ak moom lay gën a dugg ci boppam ndax nag vraiment ñun gis nañ né biñu commencé ba tay souvent ñu wax ak nit mu xamal ñu carrément que ne affaire bi amon na ci kumpa parce que ben ci réalisation président Macky Sall amna na lu ko ci umpoon benen bi ci dess ñi nga xamné ñom lay xëccol réew mi ta amuñu benn programme lu dul di yëkkati wax ju ñaaw diko tek ci kawam ñoo ñu diaboliser won nañ leen ak euh, diaboliser won nañ ko ak askan wi mais tay nak ñun dañu wacc pour def li ñuy wax euh, lavage cerveau manam askan wi loolu nga xamanteni ni tay mom la euh jéegi defoon ci ñoom te lépp di ay ay ay ay nar ak i tappale ñu génne ko wax leen ne président Sall daf fi ne fang te lu ne fang du ko jeex dafa tegaat programme bu leer aussi boo xam ne dafa wax ne buñ ko joxaate réew mi dana ko def bi mu bi mu fi waxee Ila Touba ñu bëri dañ ne munta nekk mu réaliser Ila Touba kon tey bu ñëwee fii commencé fii campagne am ñëw ci xalif général di Mouride mu ñaanal ko mu wax ne bu ñu ko falaatee dina fi def boulevard yi nga xam ne moo nekk Touba muy mbedd 30 yi dina ko tali dina fi def secteur industriel dina fi def aéroport ñun gëm nañ ko parce que li tax ñu gëm ko mooy lu ñu mës a dig def na ko. dañ doon jàppale président Macky Sall mais euh, malheureusement bu financement ñëwee duñ ci jot su courant ñëwee duñ ci indi bu ndox ñëwee duñ ci jot moo taxoon tey ji ñëw fii ci ñoom waxtaan ak ñoom ci ay seeni i jafe-jafe bëri na tamit yu ñu wax yoo xam ne ay problème la mais reconnaître nañ ne président Macky Sall liggéey na xëy na nag daanu dajut fépp. moo tax ñu fas yéene tey jibile woon fii tey ñëw fii nii ci quartier Mbadianeen wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee tamit yàlla mi ngi ñuy sudoral fi ñu fi dem yëpp yàlla sudoral nañu ñoom président Macky Sall lañu àndal te moom lañu fas am mooy wax nañ ñu ko mooy fii ku fi ñoo amuñu courant ndox mi amuñu ndox loolu mooy seen jafe wax nañu ko ñu it ñi ñu ñëwoon ci ñoom sàkku ci ñoom ñu wooteel ñu sàkku ci ñoom wax leen suñu soxla noonu lañ fas ànd ak ñoom seen i jafe-jafe ak seen i soxla ñu taxaw ci ndax ñun Touba rek lañu am te ñun Touba jeg rek moo ñu yitteel mu ñu benn rendement ma ànd ak président Macky Sall te Touba ñuru ko mais gis nañu Touba rek moo ko jël sama carte moom laa koy may sama waa kër fukki carte ak benn nga fa te ñëpp moom la ñuy wateel ma yow papa da nga am gis-gis ndax président li ñu koy doyee mooy mu liggéeyal ñu suñu réew te président Macky Sall mi ngi liggéey ci bi mu toogee léegi benn président mosu koo def asalaamaaleykum mbokk jullit yi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw comme ni ñu ko waxee rek affaire bi moom noonu la rek Macky ñoo bok dekk ñun ay doomu Fatick lañ wax de karma sala Macky bu mu yoré dekk bi ba légui gis nañ fi lu mu liggéey sant yalla nak yalla yalla yàlla xib dolli ah ñun tam amuñu gën ko doon Macky comme ñu ko doon défé rek sak sax <coughs> ñun ñëpp après par nañ pour sanil Macky. xalé yi ñëw nañ xalé yaangi ni nii ñëw ci sa kër waxtaan ak yow parce que président Macky Sall am na lu def. autoroute Ila Touba da koo defar jox ko addi Serigne Touba en place lu ñuy wax DER xale yi nga xam ni yu ndaw bu ñu amee benn at ba juróomi at bu ñu demee hôpital du ñu fayu couverture maladie universelle xam naa ni yaatu na xaw ma ndax agsi na ki yéen accès gut ci euh, loolu nag moo tax ñu ñëw président Macky Sall naam bëgg ngeen ko waaye tit bëggoon nañ xam tuuti jafe-jafe yoo xam ne tit am na fi ñu ñu ñu xam ko buñ ko xamee tit parce que yéen bu ñu amaatee mandat ñu ñëw fi waaw noo tudd. soxna Mbène laa tudd. soxna Mbène maa leen di siyaar te jiital siyaar bi sëñ Mountakha Mbacké sëñ yaakaar ak sëñ sëñ naar jenn sëñ waa ngene daal waangeen lañ sax waaye boo waa tuddee waangeen da ngay jiital sëñ mbàkk mbàkk mbàkk ndax moo leen jël noonu siyaar ñi di balu ñëpp am di baal ñëpp am dama bëggoon fii ñun amuñu ndox amuñu courant amuñu yoon hôpital sori nan fii ku fi wéeru di bala ngaa bala ngaa dem hôpital tey da ngay sonn ndax xam nga ne fii taxi yi bëriwul nga nga am jigéen ñi balaa dem ko dëkk ndaamaatu ba for bala ngaa dem fournisse rek sonn mhm. amut yoon koo wax fii mu ne daa bari suuf mhm. suuf moom xëy ñàkk yoon loolu moom suñu problème waaye du leen waaw amul euh, courant amul ndox amul yoon d'accord loolu moom dégg na hôpital allah